Euh, nuyoo booboo ñaan bi yëpp seppi naa ci ñaar xeet yii ñaar ñii maanaam seppi naa lañ ci nuyuwuma leen ziyaaruma leen ak ñoom parce que fo nawloowuñ ñu nit nawloowuñ leen muy maki Sall mi nga xam ne moom lañu ñu dénk réew mi ak ñamu créé nga xam ne ay mala lañu muy euh, ay mbaam ak ay nag yoo xam ne ni daf leen a xont bañ ëpp seen baay ñuy wër di mbëkki ak a weq ñu leen di wooyee nervi yi les nervi nag man dama jàpp ne euh, ku yàlla nattu ba def la nervi yow yaay dund safara bi gën a métti ci àdduna bi parce que juddu war a jàng war a am jaar-jaar war a liggéey war a am xam-xam nga def lépp ba mu pare te entraîné ba doole ji bari doyoo ko dara dara dara loolu di ci néewal doole say moromu nawle say mu askan ci compte benn doomu aadama dama jàpp ne loolu ku yàlla nootu dëgg dëgg dëgg gàccee àdduna dëgg dëgg mooy juddu doon nervi au finish euh, may wax nag ne a ah, nit ñi nañu àddu ndax ku àdduwul di nga àtte te li ma gis nii muy raam ci ñag ba la jëm tàmbali nañ ko depuis longtemps. politique yàgg na fi kenn ku ne am nga sañ-sañ nga ne faruma ak diw wala ànd naa ak diw Macky ñi ànd ak moom am nañ ci droit ñi àndul moom am nañ ci droit ñi ne Macky dafa ñaaw am nañ ci droit ñi ne dafa rafet am nañ si droit waaye yow nga ne li yàlla amul yow Macky di nga ko am maanaam kenn du dàkk maanaam yàlla mi nga xam ne moo sàkk ñëpp sax il ne fait pas l'unanimité ñëpp d'accord ñoo moom am nañu ko gëmut te moom yàlla mu sàkk leen te nangul leen loolu bàyyi leen ci ñàkk gëmam go seen ñàkk gëm go yooyu euh, rayut leen dafa ci ñoom soppiwut leen daf leen a bàyyi ñu dem ak seen li ñu bugg loolu mooy démocratie yow Macky Sall nga ne loolu du am yow ñëpp a war a ànd ak yow ku wax déedéet sa mbaam yu mag yooyu ak sa nag yu mag yooyu jóg leen bëgg ak a weq ngeen ne kenn du wax te et kenn àdduwul ñëpp a ngi toog ah, àdduwul dana am fu mu yegg ah, bëgg mu taxaw te du taxaw de ndax li koy waral mooy euh, mala yooyu. seen dund gi ak dund kaña amul différence ñoom ñu ñu seen de ñu dee ak deewu kaña amul différence waaye bu ñu bëggee jàpp askan wi nga xam ne ñoom am nañu xel euh, bëgg nañ dëkk bi yërëmante nañ te bëgg nañu mu soppeeku ñu ne dañ leen di door di leen néewal doole saa su nekk parce que d'accorduñ ak Macky Sall dama yaakaar ne nit ñi duñ toog di saraan loolu muy continuer daa iman politique jarut loolu politique jaru ko léegi nag askan wi yéen laay waxal wallahi bu ñu toogee di ku naan ay diplomatie non nañ comprendre nangam sangam ñii dañ ñuy rey mala yu mag ñii dañ ñuy rey te du mujj fenn te ñoom seen njëg doon lu dul bu nit ñi sàccee milliards mbaa nit ñi sàcce ay millions compal leen ci ay mille ñu sañ a rey nit ñi nga xam ne dañ ne déet xool leen sa bët kii ngi sàcc eh, déet moytu leen li baaxul dama jaakaar dama jaakaar ne loolu Sénégal yi duñ ko ne di ko seetaan muy continuer ci réew mi ba tax na kenn ku ci nekk. da nga jël say matuwaay ndax lii xew euh, service de xaw ma l'ordre la xaw ma désordre ñu ngi ci dëkk ñu ngi koy xool nit ña ngi gis ñëpp a ngi xool kenn waxul àdduwuñu wuñu ay civil jàpp seeni morom civil di dóor di neewal doole di def ay ñaawteef kenn waxul ñu yaakaar loolu day loolu noonu lay di continuer kenn du ko seetaan muy continuer donc tax na dama nee naa képp koo xam ne senegale nga te noonu muy doxee neexut la na ngay jël say matuwaay balay mbaam yi di la rey perte bu dee jotee ñoom nañ dee parce que ñoom seen dund amul benn njëriñ amuluñ askan wi njëriñ amuluñ seen bopp sax njëriñ loolu nekk ci merci wu benn doomu aadama li ndongo lu doon wax. alalu borom barke maanaam bopp bu amul fayda maanaam nit ko amul fayda alalu borom barke ngay doon ñu lay jëriñoo te doo jëriñ sa bopp te loolu moo nekk di xew nii donc nañu xoolaat taxawaay ñun askanu Sénégal parce que am loo xam ne nii olof def ko junj mu ne. addu kalpe li ko kalpe bi jaral yow borom kalpe bi nala la jaral lu ko raw ba du yóbbu sa kalpe sun bakkan yii sa suñu sama bos bu rëy bii li mu war a jaral nervi yu ñàkk fayda yii nga xam ne amuñ personnalité amuñu jom suñu bos nañu jaral lu ko raw ba duñ ko yóbbu barke alxuraan bu ñu saranee dañuy buum dañuy def ay ñawtif pour sol lu benn doomu aadama bu nañ ko bañ képp kuy sénégalais na nga jël see matuwaay allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salim jërëjëf yàlla ñu ngi lay gërëmaat bi ñu dimbalee ba ñu ñàkkewuñ jom ni ñi xeetu nit ñooñu waaye Macky bu dee troisième candidature moo tax ngay ñafe moo tax ngay ut yoon bi di ko nii jàppal ni nax nga sa bopp tàpp nga xeer lañ lay wax yow sa loxo ci xeer nga ko dóor kon parce que indi nerveeg am de tenue ñoo ñu ngi fi am ay droit am leen lu nekk lu bëree bari bu dëkk bi yëngu askan wi yëngu xam nañ ne askan wi yëngu xaju ci dara waxatuma la ay nerve yoo xam ne nii danoo bon ñooñu bu askan wi yëngoo waxuma xaj seen dara dañ leen di déggee fa laa yem ak fa yow nag lum leen jaral rek dinañu ko jaral wasalaam. siiw du boom maa xam dara lépp lu yëngoo